waaw Ousmane Ndiaye coordonnateur départemental du mouvement pour la transformation nationale fii ci Ndar. ñu bëggoon xam tey waaw tey kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci juróomi goxu département bi ñoo fi daje tey ndaje mi nag du lenn lu dul ndaje kontante di kontaan loolu di gërëm bu baax président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay ci tabb bi mu tàbb sunu kilifa sunu njiit le professeur Mary Teuw Niane daal di koy def son ministre directeur de cabinet muy li nga xam ne neex nañu loolu ndax ñun xam nañu kuy professeur Mary Teuw Niane Sénégal xam nañ ko addina bi xam nañ ko muy ku loxoom set muy ku nit ku jub nit ku woyof waaye nit ku am xam-xam loolu mënoon jël xam-xamam jaay ko bitim réew waaye mu bàyyi lépp ñëw toog Sénégal toog Ndar pour liggéeyal askanam kon nag loolu ni nu mënee santé président mooy ñu daal di defaraat sunu toogaay daal di dajalewaat askanu département Ndar yëpp daal leen indi ci ñi nga xam ni élection yi la néew néew voté lu woon président ñu daal fexe ba ñoom bu élection législative yii di ñëw ñu daal di voteel président ndax nag bu dee président de la république dafa bëgg fexe ba ku bëgg faju faju bu dee dafa bëgg fexe ba doomu baadoole bi mën a jàng ci anam yu rafet bu dee dafa bëgg fexe ba problème assainissement kenn du ko waxati bu dee dafa bëgg wàññi dund gu cher gi ak loyer bu cher bi il faut que ñu fexe ba député ya nga xam ne ñooy toog fële ca assemblée ñu daal di fay am majorité boo xam ni lépp lu mu bëgg pour ñoŋal sunu am